gendarmerie gendarmerie. gendarme gendarme yeeg nii bëgg défoncer buntu kër Barthélémy ko gisee nii ils veulent la porte de la maison de Barthélémy Dias yàlla koy gisal seen bopp ils sont là une loi de renfort ils veulent la porte de la maison de de Barthélémy Dias ñooñu ils veulent défoncer la porte moom du fi ils veulent défoncer la porte du kër Barthélémy Dias mooy ni def seen sébine ñëw ba fii voilà ñu gisee ni encerclé nañ buntu kër gi voulez défoncer la porte. nekk leen nit. nekk leen nit. je suis dans une maison nekk leen nit. nekk leen nit. nekk leen nit laa wax. du ngeen ay dëmm. nekk leen nit. su ngeen duggee nag su ngeen duggee na ngeen xam lu ngeen di duggee. dugg leen na ngeen xool dugg leen bu dee góor ngeen. il faut rentrer. ah dugg leen nangeen xoolaat bu baax lu ngeen di def mais rentrez nag vous allez voir rentrez il faut rentrer vous allez voir na lan de lii de violation de domicile lañ nekk def nii waaw nañu dugg rek Barthélémy Dias moom kenn du ko wax lan mooy violation de waaw waaw jeex na jeex na jeex na jeex na donc honorable député Mame Diarra Fam moo taxaw nii ci suuf nee na moo ñu taxaw moo fi taxaw On fi taxaw eh, derrière nous sama aussi Hassan Diouf qui a quitté waaye ñëw fii donc euh, ci la Sicap Baobab ñu bëggoon def violation de domicile dugub biir kër Barthélémy Diaz mais dégg ngeen ko sànq waaw ñooñu génnee ñooñu jàpp euh, honorable député Mame Diarra Fam ñoo ngi koy jàpp di ko yóbbu ñoo ngi koy jàpp di ñu ngi koy jàpp di ko yóbbu gis ngeen ko de Barthélémy Dias nee na leen bu fekkee am ngeen fit dugg leen ci kër gi waaw attaque moom ñëpp la ñuy attaqué sauf Barthélémy Dias ku weddi laajoon nervi ku weddi laajoon nervi ca 2011 ci buntu mairie Mermoz Sacré-Cœur waaw ngeen ko de Barthélémy Dias nee na leen su fekkee ñame ngeen lu ngeen def rek dugg leen parce que dañ doon waajal dugg ci biir kër gi waaw dañ doon waajal dugg ci biir kër Barthélémy Dias xaw ma kan la ñuy attaqué Sénégal mais Barthélémy Dias bokk ci waaw bokkatu ci waaw ku weddi laaj leen ñu ñëwoon 2011 fële ci buntu mairie bi ay olof ñaay naan gat sa kay fay waaw ah, te fulla mooy jaay Dakar gatsa sa gat sa moo koy fay te fulla mooy jaay Dakar bu ñu demee ba di ay gendarme di dugg ci biir këru jàmbur nu leen neexee man jaara Fall jël si ah, ah. neexee nga xam ni dëkk bi yoon amatu fi voilà e nañ Mame Diarra Fam arrêté nañ ko donc arrêté nañ honorable député Mame ko de gendarme yi dal nañ ginnaaw dal nañ ginnaaw sànq dañoo ne dañuy défoncer bunt bi mais Barthélémy Diaz ba mu génne wax ak ñoom ne leen sama kër du kër bu ñuy dugg facilment ci la gars yi delloo ginnaaw gendarme yi ñu dellu ginnaaw maa ngi dellu ginnaaw ñoo ngi fii ci Sicap Baobab buntu kër Barthélémy Dias gis ngeen croix sa gi nii waa koñ bi am na ñu bëri ñu ci gaañu am na ñu bari ñu ci gaañu voisin yi am na ñu ci feebar am na ñu ci gaañ nga lii ñaaw na yaa ñaaw na ci démocratie parce que nag wax dëgg bu ñu nee manifestation ay ñëw ba ci kër nit di ko song loolu ñaaw la famille dellu nañ di gën a defaru dellu nañ ginnaaw ba ne Dias génnee wax ak ñoom ne leen loo leen di avancé avancé fexe leen ba bu leen dugg ci biir kër gi boo leen duggee ci biir kër gi di ngeen tooñ ku leen deful dara ci lañ delloo ginnaaw waaw xaw ma nag dinañ attaqué fu ne mais moom kër Barthélémy Diaz kenn du ko attaqué mairie bu mu yor kenn du ko attaqué ku weddi laaj ñu ñëwoon fële ci Mermoz Sacré-Cœur en 2009 leen rappeler que maam jaara faam aussi jàpp nañ eh, eh, mal bi mal bi wol ko ko neen daf la soxla urgent ah, ngeen bëgg du am parce que parce que ñun ñooy Sénégal ñun ñooy Sénégal ñun ñooy bu Sénégal ñun ñooy xare ak suñu ak suñuy sët ñun ñooy xare ba jëlee lépp li nga waxoon lan ñun maanaam xam nga ñun mag ñee ñu jàngal li ñu mag ñu jàngal ci lañuy sukkandiku pour xam nga faj ñi nga xamante ni ñoom la ñu war a faj te ci sonn dafa am loo xamante ni nag xoolal sonal seen bopp la parce que leer na leen ne leer na leen ne di ngeen xamante ni a dellu bi dañ koo bokkoon nañ dellu nañ ginnaaw dellu nañ ginnaaw de ba Barthélémy Dias génnee wax ak ñoom parce dafa amoon ay gendarme yu defoon yu soloon yére civil buggoon dajji buntu kër gi mu taxaw ci balcon bi wax ak ñoom ne leen loo leen jéem a def fexe leen ba bu leen dugg ci biir kër gi boo leen duggee ci biir kër gi di ngeen tooñ ku leen deful dara loolu moo waral ñoom ñépp ñu dellu ginnaaw ñoom ñépp ñu dellu ginnaaw voilà. jamais dafa dootul barki jël nañu yoon bi ba pare loolu moom booy boo ngeen xam ko jël nañu yoon bi mais ñi nga xamante ni moom laay gën a jox message mooy administration du Sénégal vous êtes des jeunes vous êtes des yoo xamante ni di ngeen génn seen kër yi da ngeen bàyyi seen papa yi seen yaay yi vous êtes des jeunes yoo xamante ni di ngeen di wane ginnaaw bi dem jabar bàyyi nga doom vous êtes des jeunes yoo wax leen nekk gis ngeen gendarme yi dellu nañ ginnaaw saa yi nii moom mel ni dañuy defaruwaat waaw mel ni dañuy defaruwaat parce que Barthélémy Dias lu mu leen wax leer na fii dellu ginnaaw rek mbaa leneen am fi gis ngeen dëkk bi koñ bi yëpp fees dell ak xeer parce que xale yi ñoo doon jàmmarloo xale yi doon jàmmarloo ak euh, ak gendarme yi ñu wàcc xool nu mu demee ci suuf Ils sont beaucoup d'eau Ouais. Les propriétaires en Ouais. Alors. wàcc suuf dugg ci koñ bi xool dégâts matériels yu fi am voilà pardon pardon pardon pardon pardon pardon ñu wàcc koñ bi xool dégâts matériels yi vraiment dafa dafa validé. waa ci xool dégâts matériel bi. damay xool rek dégâts yi. gis ngeen ci buntu kër Barthélémy Dias lu mu tojoo.